dëgg la pas delluwaat à cent pour cent mm. mais quand même ñu def euh, li ñuy wax coppat ci bi ndanc bi ndanc bi voilà loolu laa loolu lañ def tey sax xam nga Ablaye Diaw mi ngi may laaj nee ma quel la thème de maanaam thème tey bi lan la mm. ma ne ko mooy coppati <laughs> bii ndonk bi bii ne ko rajax waaw maanaam dañu thème tey bi bii waaw waaw doon na ko rajax. waaw waaw Louga moom mën na ko ci bañ a tudd waaye xam naa ni waa Louga moom xam naa waa Louga moom kii nga la. fa laa dëkk rek samay maam fa. fais mooy number one ndekki li ndekki li man moom laay déglu Sud FM yeah Nico di la jox good vibes ndekki lu neex tàng jër Sud FM mooy number one ndekki li FM yeah man la Beydi bi def bu bees yaa ngi ci émission ndekki lii ak maam Nicolas jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, Aline Badara Socé jërëjëf waa euh, Electronic Corps ak euh, waa original <laughs> original moom mooy dëggantaan jaay lu raxul dara ñoo ngi leen di dalal suñu sponsor yooyu di leen ndokkeel bu baax a baax di bég ci ànd gi ak ñun olof yay wax ne feccum riir bu neexee nday jaa jàpp ca wagg ya émission rajo yi daa bokk ci li koy may xorom sponsor ci la bokk hmm. ñoo ngi leen di nuyu di nuyu waa i fondé sa jigéen boobu woona ma bërki démb bu sama yaay ji di ànd ñun jotaay bi te di ko rafetlu waaw euh, ah, maa ngi koy ziyaara bu baax a baax dëgg la sama xel dem ci ni ko <laughs> ñoo ngi nuyu itam mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan biir réew mi ak bitim réew ñi nga ne ñooy bàyyi xel euh, jotaay bi en direct ci waxtu wi kenn mënu leen lim ak ñi nga xamante ne ñooy ànd ak ñun ci YouTube bi di indi seen ay commentaire waaye di indi itam seen ay euh, xalaat ak ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ñun ak ñoom ñoo bokk waxtaan wi émission ndékki li dellu seeti na waxtaan mënta ñàkk te nañ ko def joo gis nañ ko wax taane moo war a jiitu moo tax itam ñuy séq saa su nekk yi nga xam ne mooy xew-xew yi yi gën a ràññ wàññeeku wala yi ñu ci tànn jàpp ne amal nañu njariñ ñu indi ko teg ko ci taabal ji di ko jéem a firi ak a faram fàccee du ci wéet nag ndax saa njàmbur xëy si na moom laa fas yéenee feggoolaat ci jotaay bi mhm. alaaji maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu di nuyu bawal bawal yëpp gannaaw yow teew nga kon maa ngi lay nuyu nga jaarale nuyoo bi ci yow ci waa bawal waaw ba mu yegg bawal dee ci boole waa njaareem waaw du bawal mooy njaareem waaw mais comme comme njaareem ay capital ba itam dee ko tuddaale kon ki waxal Jurbel rek non Jurbel ah, mais ñun njaareem la ñuy wax ñun <laughs> njëriñ sa njëriñ. <laughs> waaye loolu lépp mooy Bawol rek ak li ko wër ak dëkk dëkkaan yi ko wër yëpp. waaw Diourbel mooy njaarim. waaw Diourbel Diourbel ki nga xam ne mooy njaarim njaarim nag damaa ragal ne jaar yéemu la woon. am na ñuy wax loolu de. jaar yéemu la woon. waa ci loolu yéemu. xëy na boo sëñ Tuba nekkee la gaa yi yéemu. wallaay bu dul bu dul na déet ba léegi da ngay yéemu. ah sëñ Tuba leen kii rek. Ah, am na fa yuñ mën a wone de bu ñu doon def tourisme religieux nii yàlla xam na ne dama yóbbu kon kay ñu dem tubaa waaw mooy Tuba mooy njaarim DER Touba lu Njaareem. ah ñun boole nañ ko muy benn bu yàgg. Touba Njaareem de waaw Njaareem ab Diourbel waaw waaw waaw. ci Touba Njaareem de boole nañ ko bu yàgg. waaw ci waaw ñoo bokk raison bi ñoo bokk déggin wi. Euh, waaw kaca Touba Njaareem la nekkoon. ñoo bokkoon koñ. <laughs> moom kay bool bool la boo xale bi Sëñ Touba sax moom moom du bool bool. waaw ah. dafa kii rek moom. fu tànke la fu tànke. <laughs> Ah, moom moom moom moom moom El Hadj Malick yam ay kii lañ. ndeysaan ay xalkulaar lañ. waaw ndeysaan. waaye nag xam naa comme boo yoree bokk moom léeg-léeg mën nga dem jàngi faneen di dem. say bokk di kii ba ngay dugg bawal. waa xam nga daa waxoon ma siir yi waaw ilaa jurbel waaw la daa lasasin law aayanu sirra maa fi sayri maaraamu waaw gis nga léegi nag kon nag ilaa ah. jurbel ilaa jurbel <laughs> parce que parce que booba fekk na tubaab bi wër naa ak moom fu ne ne na ko yóbbu jurbel pour def ko fa résidence surveillée mu ne bëgg nañ maa yóbbu jurbel mhm. ci atum 1912 gis naa mu ne waaye bu ñu xamoon sirru bi ne ci ma dem jurbel kon mhm. duñ ko bëgg parce que fa la mbir yi nar a sottee moo tax jurbel affaire la bul ma waxtaan loo ci Jurbel non dama la Jurbel sëñ Tuubaa tax man kay loolu damaa ko waxaat bu du woon sëñ Tuubaa fu ngeen jëm waaye waaye loolu sëñ bi aw tagg la eh, tagg nga ñu ñun ñoo am dëkk bi nga xam ne fa la def fa la masa def fukki at ak juróom ci kaw suuf yéen kay fu ngeen julee ñaar raaka war ngeen cee nàkkal sëñ bi ñaar <laughs> sant yàlla ba baax <laughs> bàyyi ruube <laughs> waaw Jurbel moom il faut il ñu kii ko il ñu bàyyi waat ko xel baax parce que fi li nga wax nag dëgg la ndax fukki at yàlla ak juróom. waaw nga nekk ko ci benn suuf. suuf soosu war naa am barke bu fa nekk. dëgg la amaa barke ba sax ma nga fa waaye xam nga euh, man xam naa daal mbir suñu borom doy na waar. mu fawaat Touba teg ca ga. dëgg la Touba nag day dëkk boo xam ne màgg gi muy màgg. dañ koy kii euh, dëkk bu dend ak moom sax da laa laalaale. waaw da lay laalaale parce que fi mu ne boo demee ci àll bi ci li wër Touba da ngay daw ba mu yàgg nga gis ay niima. ak ay foo xam ne ak gent lay doon. nga xam ne fii am nañu fi waaye tuxu nañ dem Touba. waaw léegi jurbel nag bu nit ñi tuxuut ak seen i kër it dafa bari yu baree bari yoo xam ne ci ay infra yu ñu waroon a def day mujj nekk Touba da koy da koy rek da koy mëddi ci bët nii waaw loolu mooy mooy économiquement sax gis nga ni ni jurbel tëddee mhm. loolu nag mbiru suñu borom dëgg la waaw kontaan naa ci ni nga ubbee jurbel nii ah parce que itam euh, ci wàllu politique ci wàllu politique dafa bokk ci dëkk yi ñu war a geesu xam nga politique bu fekkee capital bi rek ñoo ci gën a gis seen bopp des na tey boo jëlee régions yi tey fu mel ne kawlax nga xool li mu boot ak fi mu fi mu positionné wu nga jël lu mel ne Diourbel tey jël lu mel ne euh, euh, Louga dëkk yooyu dëkk la yoo xamante ne du wax ne defuñu fa lu am solo waaye buñ ko gënoon a yokkit mu gën a gën waaw mm-hmm. xam nga xam nga ñu bëree bëri euh, gouvernement yi bari fi jaar li nga wax dafa leen a xaw a dal tuuti. Mm-hmm. ñu ci bari dañuy dañuy dañuy jaawale développement Dakar ak mm-hmm. développement Sénégal. waaw xam nga développement Dakar. moom daanaka mooy capital bi. ñu bëri nag li ñu li ñu fi rënk am na ci loolu mën nañ koo coppi ndànk yóbbu ko fenn. dëgg la de te loolu nag yàgg nañ ko wax depuis Abdou Diouf waaye gisaguma ñu réaliser ko. ba léegi lañ ca yokk kës néew mooy jëm ñaajo. daf fay defar ay hôtel def fa ay nangam def fa ay nangam te pourtant li nekk jëm ñaajo yëpp mën naa nekk njaarim dëgg la ndax njaarim yor na suuf su ko dékkoo te bu ko tourisme religieux bii ngay wax day daal di nekk bu ñu xottee yoon yi ilaa Touba bi mi ngi fi am weneen xàll wax bi day jaari xëy na Daaru Musti du gi Louga mhm. dikkaat bu biir Dakar gi mhm. fekkente ne tey jii ministère yu baree bari ñu ngi woon foofu mhm. léegi Jurbel dootu ñàkku nit la sa comprendre ko effectivement maanaam loolu boo xam nga xam nga infrastructure day gaaw dëgg xam nga xam nga tourisme réalité bi nga léegi tax man ma posé question ci ñun Sénégal li ñu jàppee parce que bu fekkee ministre de euh, bi yor wàllu tourisme tourisme mooy dem ci hôtel yi ak tefes yi euh, baax na waaye tourisme réalité fi àdduna bi toll tey boo demee Turquie li ñu am ci wàllu euh, façon yooyu nit ñi ñëw di ko visiter yi euh, maanaam di fay di ko xool si ci àdduna bépp mhm. dañ koo valoriser mais am na loo xam ne sax dëkku fa dañ koo mhm. jëlee ci xijaas mhm. indi ko foofa ci seen i réew boo demee Égypte gi ñu doon waxtaane léegi ci hors antenne euh, tey boo demee ci seen musée bu mag boobu nga xamante ne fa lañ def pharaon yeeg yooyu man ngaa wax ne ci xaalisu CFA ngir nit dugg fa kenn ku ne dana fay douze mille francs pour visiter ko xoolal loolu li indi tey boo jëlee tey suñu réew dañoo am yu mel noonu tey buñ ñëwoon bàmmeelu Maba Jaxu Ba fële ca somb nga wax tey euh, fee ca mm, nu mu nu mu tuddati fii ci. Euh, wala déqale rek. waa déqale. Mm. wala fii ci ndànd ndànd laa bëgg a wax. boo demee ndànd fi ñuy wax kalomfaal. seen teen bu seen pax moom nga xamante ne. Mm-hmm. miracle la bu ko nit di xool. Mm-hmm. nga ñëw tey njaareem. jumaa joo xamante ne sëñ bi moo ko tabaxoon énigreel ko boppam ñu ne la fii la dëkkoon man laa woon ay bagages yi boppam man laa woon nangam mais loolu ay ñun ñun ñooy dëkk ci réew mi te duñ ko xam. ay nit ñooy jàngee ci réew mi ba pareem njàng te duñ dem ci barab yooyu visité ko duñ ko valoriser loolu itam ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk maanaam jëmmal li nga am lay tekki waaw xam nga problème de visibilité la ak problème de communication boo xam ne bii waroon naa maanaam jiitu lu yàgg lépp di am mm-hmm. am nañ gannaaw goo xam ne gii buñ ko wëlbatee ba xool ko histoire bu nekk ngi ci biir mm-hmm. tudd nga foofu bori ndaan dafa tam ni nga xam ne yafa amoon yëpp ak mm-hmm. seen pax moomu la eh, beneen affaire la Maba Jaxu gis nga fi mu jaar gis nga ay mbiram am na ci surtout fi nga te sax waxee. dafa mm-hmm. ñaari réew yoo xam ne yi ci àddina bi man ku leen gën a riche la histoire. man gisaguma ko dëgg la Égypte ak. Turquie ak Turquie waaw. xam nga euh, Turquie dafa amoon empire ottoman. Mm-hmm. mooy dawla ottomaniya bi ñuy wax. foofu foofu daanaka lu baree bari foofu lañ mm-hmm. jëloon mbir yi demee noonu. hasard euh, yi maanaam jeexital yi tax ñuy dem ba Turquie ak Égypte. yaa ngi fàttaliku yont yàlla Shuaybu ak yat wa nga xam ne joxoon na ko Moussa ak ya ci aju yooyu yëpp mi ngi tur yëpp nekk foofu waaw yooyu yëpp mi parce que mm-hmm. ne bi ko woon euh, lim leen di indil kenn xamul nu mais justement léegi nag loolu nag nga xam ne dañ koo téye ba koy mën a jaayaat ci àddina bi am nañ ay mag ay béréb yoo xam ne tey jii Sénégal rek boo tàmbali woon ca euh, ca l'empire di Ghana. Mhm. Sénégal ni mu façon ba ni mu amee ba defi islam duggee. Mhm. am na ci ay béréb yoo xam ne tey jii fu mel ne yang-yang. Mhm. waaw yang-yang yang-yang. xam nga yang-yang c'est dans le Jolof. dëgg la ak ñoom albureeg yu demee noonu. pa parti boobu rek mën nañ ko ah, gën a revaloriser fa la buur ba jolof nekkoon fa la buur ba jolof nekkoon nga xam ne ñi daa dut mën a fay impôt mu leen di mu leen di yanuloo suuf bu ñëwee fa lañ koy sotti pourtant tey ji <laughs> côté yooyu nga xam ne moo di yang-yang ak li nga xam ne amoon na ay parti historique mën nañ ko mën nañ ko miire mm-hmm. buñ ko buñ ko clôturer mm-hmm. indi ko fa ba nga xam ne ku ñëw da naan suuf si day fii ak lii ak lii moo fa mais loolu nag dafa laaj volonté politique boo xam doo mm-hmm. nekk Ndakaaru rek di ko wax dëgg la bu ñëwee tourisme am na ministère ministère bi loolu daa war a bokk ci taxawaayam justement maanaam li nga am mm-hmm. moom ngay jaay kii ñëw mm-hmm. mais bu dee hôtel bu dee ay restaurant bu dee nangam loolu partout ci àdduna bi ñëpp ko am ku am xaalis am ko mais am na loo xam xaalis mayewu xam na ko waaye xam nga problème fan la nekk hmm. ñun dañuy def lu ñu miin daal koy toj fàtte la ko gannaaw hmm. gis nga ndakaaru ni mel nii ak i tabax 1962 mi la ko woon. déedéet 1945 mi la ko woon. déedéet te pourtant am na yu fi nekkoon 1945. xam nañ ko bañ a toj. dëgg la nga xam tey ku ñëw Ndakaar am geneen kan. la meloon. Mhm. Sandaga meloon ci 1962. mu am yu ñu fa bàyyi di ko foole am yu ñu fa mhm. na fi tànkam Lamine Gueye fii la tegoon nangam mais lépp dañ koo toj lépp. moo tax dañoo gëlëm. gis nga population bu gëlëm mooy ku xamut ku xamul sa démb voilà nit bu xamul démbam. Hmm. day yaakaar ne moom du dara. Ah. ñun ñun dañoo yaakaar ne Sénégal 1960 la tàmbali. déedéet léeg-léeg nga dégg kuy wax sax ci politique daan naan 1960 ba léegi nangam te Sénégal li fi xew avant 1960. ci yoo xamante ne nii sëñ bi xewu ci yeneen réew yi ñu war yoo xam ne ñun amuñu benn repère suñ ginnaaw. avant a ngi doon voté. waaw xam nga xam nga nga wax rek. nit bu bu mooy da ngay gëlëm waaw maanaam li Serigne si Ahmed Tidiane si Al waxoon doomu aadama tumuranke mënta paase umpale sa bopp. Mhm. te ñun réew mi léegi dañu umpale suñu bopp suñu démb yooyu ñu. fàtte dëgg la. suñ bërki démb yooyu ñu fàtte mhm. yaa ngi fàtte la ko bu bët daan sébbi këll këll bi ñu la daan jox def ci as dugub def ci tiñ waaw jox la ko ne la geesu bul geesu ba am lu ñu ca tafli mhm. léeg-léeg ñu teg ci ëpp këriñ mhm. def ci ñaari ñebbeeg yooyu nangam léegi daal di dem ak faro gi ngeen doon faro mais yooyu am na saalum ba tey xëy na naam dëgg la waaye mi ngi dem dëgg la mi ngi dem dañ koo sànni waa dañ koo sànni loo ñu waaw dañ koo sànni nga xam ne tey bu bu bët sébbi woon tey ñu néew ngay gis nga gis ak machine yi gën dem mais nit daana yore aw jiwu du wax ban dugg ca tool ya ban defal ko fa ay tooba xam nga tooba. waaw waaw waaw góore waay. itam waaw léegi dañuy wax ne xam nga luy xët. waaw. xëtt wolof dafay faral di wax ne yëgul tool ba buur xëtt mooy tool ba koo a buural du waaw waaw loolu lañ tuddee xëtt xëtt googu daf daan faral di am mm-hmm. xëtt googu nag am na mag ñoo xam ne ñii buñ ko diig gin ko fa diig mm-hmm. day ñëw tibb ca suuf sa mm-hmm. ndax dara la waaw dara la ndax xam nga la ko fa ba ba jiwuñu ko loolu dara la wala ngay soq dugub am na ci wala ngay dëbb ñebbe mhm. am na ci yu tëb di wadd ci suuf mhm. yoo xam ne kuur gi dalu ko bu ñëwee ca walandoo wa waaw dañ koy jël waaw kay <laughs> bu ñuy sóobante noonu ca walandoo wa léegi bu ñu ko ne tëll ndeysaan léegi fépp dugub yooyu nga xam ne kuur gi laalu ko ba pare mu wadd ci suuf la ko mhm. tax a mucc la ko tax a mucc daanañ ci def ñaan di ko yóbbu ci ñi dem ci xare yi dëgg la nga xam ne lu lu bali a bali bari bari man lay kuur waaw waaw yow mën nga caa nga caa ñu koy booleel rek <laughs> lu balu fetal yi bari bari bari yow mm. li ban dëbbee ci kuur gi ba mu tëb waaw la ko muccal. boo hmm. ko booleeg dara mu musal la. dëgg la yooyu nag dañ ko amul démb. Hmm. waaw am na ci nag loo xam ne influence islam dindi na ko. dëgg la waaw islam it. Mhm. ba mu ñëwee am na loo xam ne ne ni. teg leen ko nee. dëgg la am fi lu baax loo xam ne daf ko fay téye. Mhm. waaye am na yooyu it buñ ci négocier woon xëy na mën a sonn nañ ko fay bàyyi. dëgg la amaana sax yegg ci yenn garab dafa am yoo xamante ne. l'islam nañ ko fay bàyyi l'islam bi mu ci am gisinam la. di mhm. gisin bu baax ndax itam euh, dafa am luy laal ngëm-ngëm. am loo xam ne itam mondialisation daf ko indi gis nga Maodo yi nga wax ni dañoo amoon temps waxtaane ko. ba ñuy am ab reeru. Euh, nit ñi di daje di reerandoo ñuy daje di añandoo ëtt bi nga ñëw fekk mag ñi te gong yi xale yi tëdd ci romb jaan yi xale yi di caxaka lépp mag ñi di waxtaane lañ gisoon ca luuma ya buntu kër gi ñu wutal ko géppañ buntu kër gi ñu wutal ko géppañ wala ñu wutal ko am bañ gàcce oh, itam xam nga yooyu dañ koo amoon mhm. man damay faral di wax ne yooyu bi ñu demee ba amatuñ ko man koo gis mhm. télévision yi ñëw loolu dafa waroon a am placard ci biir télé yi c'est-à-dire nga xamante ni dafa am loo xamante ne ni dañuy fàttali suñ démb ci façon yooyu jotaay bi ñu daan am ci reero bi mën a waxtaane jotaay bu mel noonu am ci télévision bi jotaay bi ñu am muy cax ak lépp yu am njariñ loolu mën a feeñaat ci ñun c'est-à-dire nekkul ne da ngay avancé bàyyi la nga yoroon waaye li nga yoroon da nga koy civilisation mënta passé mel ni nga war a mel rek waxoon naa ko fi ci golo yi golo goo gis xam ne ñaari golo ko jur loolu ba ko waxoon naa la ma la waxoon waaw waaw waaw tontu nga ci woon. waaw kon nag ba nga ko waxee waxoon naa la ma la nga ma ko wax ci waxu ñu nekk waa waaw. waaw non ñu nekk waa Fann. Ah, bàyyi wax yooyu ay ay golo golo ko jur golo bu ko bu ko golo jurul ku koy jur. til wax dafa am fond forme ak fond. da ngay xam nit koo gis it xam ne ñaar a ah, wax. waaw yaa ngi wax lu leer lu tegu jékki-jékki di day affaire golo. non xam nga man sa diggante golo laa xamul lan la. xam nga xam nga civilisation ci boppam. Hmm. dama cee bëgg a jàngale ci bu ma tuddee rap woowu wala hmm. bàyyi ma boobu ne nit dafa war a fier ci ni mu mel. Hmm. fierté bi mu nekk ne loolu la. kon golo fier na ci li mu nekk golo xanaa xam kii fier golo la gën a fier. Maodo golo la ko wax. non mais xam nga lu mhm. da gis koo xam ne kii day ñuul ba mu yàgg mu xees gis koo xam ne kii daal yemi sol da koy jéem a yëkkati pour mu am taxawaay loolu ki am xel rek a koy def parce dafay bëgg di ànd ak jamono bi di bëgg a boppam mhm. mais rab yi fa leen yàlla bàyyi woon ba léegi ñu nekk fa est-ce du fierté mm-hmm. donc donte ñoom duñ ci dara parce ñoom dañoo dañuy dañuy ñun nag ñun dañuy dañuy dañuy agir pour transformer wu. dëgg la léegi nag loolu nit a ko mën a xam mais rab mënu koo xam. Mhm. mais yow muy nit nag yaay jàngale na nit. koo xam ne kii mhm. du bàyyi boppam. waaw nit ah merci nit du wàcc boppam déedéet déedéet ah. te gis nga amour bi nga war a gën a am ci àddina. Mm-hmm. <laughs> bëggal sa bopp ba mm-hmm. dëgg la amour moom la tàmbale par soi-même parce que bëggut boppam ku mu la wax ne la moom laa bëgg day nax boppam. Mm-hmm. sa bopp. koo jëmati ba muy fitna daw. wallaahi ndax la la la tax nga yàq fee moo tax boo ñëwee ci moom da koy daan yàq. dëgg la de mais premier mooy amour soi-même. bëgg sa bopp. bëgg sa bopp nag bokkul ak rëy. dëgg la dégg naa goro ba mu euh, golo ba muy ngoro. ñëw ne baayam damaa bëgg takk jabar baayam ne ko koo bëgg a takk mu a ko bëy baayam da ko ni déet bul takk bëy daal di koy orienté kër tàntaam mu takk fa golo ne moom. Mhm. benn bis golo am doom ànd ak baayam maanaam maam ji ak doom ji ak sët bi. Mhm. ñiy dox far daje xaj. Mhm. ba xaj néewoo daal maam ja daw na ñolong ca car ba. golo daa yéeg jabar ji yéeg ñu geesu gis bébé itam yéeg maam ji ne ko lii moo taxoon ma la koy wax ah, justement maanaam boo koon béy du mën a yéeg <laughs> kon kon doom ji dañ koy jàpp waaye tey bi nga jàppee golo bi nga takkee golo bi problème amee ñun golo yi rek la nañ suñ problème waaw jeex na moo tax gis nga euh, très bien loolu Mbàkke nag wax nga lu am am solo mm-hmm. gis nga tous les mm. problème boo gis ci famille mm. problème ba bu garaawee rek daa génn kër la waaw mais famille bi buñ déggoo te daje mën nañ koo rek la jeex na walaay famille xajut ci problème Maodo déedéet famille xajut ci benn problème lu ñu songu daan ko. mais léegi famille yi ñooy problème ñoom. mais parce que tout simplement dañu am lu dafa am benn intervention extérieure maanaam dafa am beneen affaire bu bu nekk ci biti kër gi. Hmm. bu gane si kër gi te bokkul woon ak ñoom démb seen démb comme li nga doon wax léegi nii. Hmm. waaw loolu mooy bu fekkente ne yow la nga xamoon. Hmm. nampaluñ la ko la ko ba nga war caa mën a teg sa tànk. pour am une fierté. continue boo xam ne bi loolu dalay accompagner. léegi bu problème amee ci kër da ngay da ngay da ngay préférer génnee ko ci biti. pour man koo résoudre te boo ko te boo ko génnee ci biti problème bi dootul résoudre. dëgg la te eh, wolof nee na ay woo gis mu takk ci am pénc. Hmm. borom xel mu gàtt rek moo firi xew-xew. Hmm, hmm. waaw borom xel mu gàtt ko waaw borom xel mu gàtt kenn wul ko wax loo. déedéet moom bu ñu wax daa war a noppi. bu solution amee mu ne pat. ndax moom buy wax day <coughs> <coughs> kii li ko dal métti na <coughs> bu ñuy wax mu noppi bu solution amee mu noppi. waaw waaw mais parce que bu waxee yàq. parce que nit ki tant que yaa ngi wax di jiital sa bëgg-bëgg wax ji amatul solo mhm. bu fekkente ngay gaaruwaale nit wax ja baaxatul mhm. waaye kii wax ngir yàlla kooku ci famille rek lañ ko mën a jëlee mhm. ab jàmbur du la du sa kër de gis nga tey am na problème booy am ak sa soxna wala sa rakk wala sa mag boo koy génnee ci mbedd mi borom intérêt dana ci dugal. wax la am na ci koo xam ne ki lam lay wax njariñam la waaye dootul dootul njariñu kër gi. effectivement léegi nag loolu nit ñi nga xam ne ñoom rusante nañ bokk benn askan bokk benn deret ñoo war a mën a toog waxtaane ko. Mm. suñ ko waxtaanee waxtaan waxtaan nag mën naa të. Mm-hmm. waaye firiwul ne du faju dëgg la ñu dàq bis bi. wax dëgg la tey de waxtaan nañ waaye jubóowuñu. du tax du tax ñu bàyyi. déedéet dañ koy tuxal dañ koy tuxal. Hmm. léegi nan dem ba kenn ku nekk delluwaat ndéegam. bu gudd bu waxtaan ak boppam. Hmm. buñ ci toggee fukki fan yàlla ñu dellusiwaat. Hmm. yow day kumba wala ndey moo ne de sa bàyyi nee na la woon nangam. sa mag ji nekk Europe day xam nga ne ku baaxal te gis nga li muy def ci kër gi. yow nag sa sa jëkkër jàmbaar la waaye. suñu borom a ko bindee nii waaye da ngay war a nga buñ dellusiwaatee buñ wax di jubóo. xam wax ni dafa moo wa shaawirhum fil amr dafa am solo parce que li muy tekki mooy nit daanu nit daanu wéet ak problème am. déedéet li xew léegi nga xamante ne ñaari nit am jafe-jafe ci seen appartement rawatina couple bi waaye dañ ciy wéet bu njëkk duñ ci wéet waaye ñi ciy associé itam réglekat yi problème la ñu doon. Mhm. gis nga ci wàllu solidarité dafa mel ne ñun ci suñ deret la nekkoon maanaam baat bi ñuy tëwëri nii naan solidarité solidarité. Mhm. man bokkut ak ba ma xamoon ca ci la. parce que dama daan gis Maodo Faye xëy na daa war a xadd ay néegam waa dëkk bi daje ci pénc mi rabatal ko xaddal ko sàkketal ko ku ne sangoo ji këram maanaam sa kër sax duñ fa sangoo ku ne day ñibbi ji këram sangu nit ñi bay tool yi gis ne moom kat nit ñi noppi nañu mbay te moom noppeegul sax ci xotti ba nëga ni bay talaraadu ñu daje mu ne daa santaane mbay ñu ñëw bayal ko léeg ñu ne dañuy sàkkatali diw léeg ñu ne dañuy bàccali diw jigéen ñi daje jëri li diw mm. cest solidarité boobu amoon ba yow mi tey boo demoon payen tey nuyoo toog Mm, dañuy tibb añ indil la mhm. mboolem ñi nga xamante ne nii sa kilifa nga seen kilifa nga bu añ jotee dañuy tibb yàkkal si la mhm. yow miy gan gi mhm. ñi nga xam ne ñoo la yilif woo la nga ñëw añ si mais Maodo loolu ñu tàmbulee ñàkk dafa neexoon te xam nga lu ci gën a neex ñi koy def xol bu sell bi xalbin salimin lañ wallaay dañ koy def ak contentement dañ yàlla xam na ko maanaam buñ koy def duñ ci soxla dara donte ab laax la la tibbal sax non da ngay moom ni ciy àndee day mel ne day mel ne aw ñay la la tibbal xam nga lu ko waral non Sénégal neex na neexoon na ngay wax ah oui waaw xam nga lu ko yàq <laughs> waaw mais c'est vrai parce que xam nga yi ngay wax nii. waaw ba muy am ñu koy def. Mm. te léegi ba léegi man naa dellu si nag. Mm-hmm. boobu dañoo jiitalul dërëm. waaw mais bi dërëm tabbee la yëpp soppeeku. dëgg la ndax dërëm day soppi comportement. Mm-hmm. dërëm day. xaalis xaalis rek xaalis ñun suñ ñëpp xaalis la. waaw léegi nag xaalis gis ah merci. Oh. gis nga xaalis boobu taax yi xaalis kii na fi nag ñun jox nañ valeur xaalis bu mu amul ah. mais parce que moo tax duñu dem Maodo xanaa xamuñ ñun ñun xaalis ay imprimante koy tiré téeméeri junni xaalis mais mais nag dignité ak ngor loolu machine du ko liggéey ak ak xam-xam. ak xam-xam machine du ko liggéey. déedéet mais xaalis ay wallaay ku baax da koy am ku baaxut am ko. loo ci am ba koy tiitaroo boo génnee gis ku la gën a bandi am ko. absolument <laughs> xam nga xaalis lan la jumtukaay la boo xam ne bi dans l'immédiateté la nga soxla nga faj ko ci jeex na. vraiment parce que loo denc. te fa jógoo ci seex la denc goo xaalis ba nga doon sa jaamu xaalis topp xaalis nga xam ne yow booy wax mooy tax booy jëf mooy tax booy teral nit mooy tax booy booy dimbali nit sax loolu nga ciy xaar. ma wax la benn wax boo yëkkati loon ab meer ak paan sax. Mhm. ne ko jox ma dara. boo dimbali woon ni sax laaj ko numéro am loolu loolu c'est quoi. est ce que xam nga ne est ce que xam nga ne Mbacke ku la gën a bëgg xaalis moo la gën a nitadiku doo doonte jàpp na ne moom nit la ndax day dem ba xaalis boo nekk ilimaanam. Hmm. bari na tey kuy woote loo xam ne bu ci xaalis amuloon du dem wallaay waaw bari na ku wootee mu ñëw toog bu doon xaalis du dem. Hmm. kooku léegi jaamootul. personnalité. Mhm. bëggatul boppam dafa am ilimaan ju tudd xaalis yoo xam ne ji moo koy jiite. ci lu mën a mais il faut ñu régler suñu problème ak moom ah. mais parce que dana dana rocc imaan. parce que nag relation bi ñu am il faut il faut ñu leeral ñu ko moom mooy lan. waaw xam nga mooy lan. Hmm. lu pourtant lu yomb lu yomb lijjanti la. Hmm. gis nga nit bu ko dara fëkkul. Hmm. mu boole ci am imaan. xaalis du ko mën a yóbbaale. bari na koo xam ne kii mi ngi wax naa nangam ñu koy déglu. fam toog di wax xaalis du fa ñëw. wallaay

suñu xaqaayiq yi. maanaam suñu ay réalité socio culturelle. li ko li ko influencé mooy alal jooju ngay wax noonu. Mm-hmm. te te te xaalis boobu du du xam nga xaalis mën naa changer sa jëmm. Mm-hmm. mën na changer sa comportement sur le plan moyen. ay ay mm-hmm. ay logistique ay yu demee noonu. mais du du du changer li yàlla def ci sa deret. boo boo dee nit. Mhm. am na koo xam ne ki li ko yàqal mooy xaalis. dëgg la day tax ba kenn nawlootu ko. dëgg la parce que dañ naan kii dafa bëgg xaalis. dafa mhm. bëgg xaalis parce que xaalis rek lay. jaar baax na lool waaw baax na lool waaye wuru laa yilif. waaw waaw wuru laa yilif. dégg naa sëñ Cheikh yaa ngi koy tudd léegi. Mhm. Al Maktoum moom ku wax wax ju ci réew mi boole ko ci. ndax li am njariñ lu ci bari wax na ko. maa ko wax nee na ki amub oto. Euh, léeg-léeg oto bi moom ko. waaw ndax mën naa am mu taal di dox soxla yu ñurut. waaw waaye moom amut personnalité bu toll ne oto bi am essence moom mu am lu mu sol ba noppi xam ne awma soxla du ma génn di lambar lambari mu toog yori caabeem waaye nit ki day génn te jëmut fenn am na ñoo xam ne fi ne mhm. eh, boo demee ci réew yi bariwul nit ñuy taxawaaloo noonu mhm. ñun ngay gis kuy waaxu di dem nooy muy dox di dem waaye jëmut fenn boo ko laajoon booy foo jëm a toog ba am soxla doxi ko mais mhm. waaw xam nga <laughs> day dellu siwaat ci li waxoon ne day desiwaat ci li ñu waxoon ne ñi nite ak ñi nitewul mhm. ak ñi nit mhm. bokkuñu mhm. loolu ku nite du ko def dëgg la parce que la ngay génn temps boobu nga yàq mënoon ko ko def ci leneen moo tax euh, influence yi am ci suñu suñu aada ak suñu cosaan yi xaalis day tax léegi lañ waroon a jàng ci xam-xam dootuñu ko amati. dëgg la lecture ci boppam ni mu amee solo liir. liir maanaam alxiraa waaw alxiraatu. wallaay yore ab téere di ko jàng nii liir waaw. waaw di ko liir. Mhm. lam lay jox ci ay ay ay ay maxfuusaat. Mhm. li ngay mokkal parce yaa ngi jël ci xelum waa ji booleeg sam xel. waaw ak ak kalimaat yi ngay dugal. Mhm. léegi ni ngay enrichir noonu ci matière en matière de culture xam-xam. léegi tey am na koo xam ne boo ko digoon dix mille francs léegi mu teg fa livre ba wax dem jëli ñaari junni maa la ko wax léegi bokk ana xam-xam <laughs> léegi waxuma la sax dig ko xam nga kooku koo dig mu jëli ko mais am na koo xam ne li muy mhm. du dëgg mhm. euh, mën naa sosal nit mhm. mën naa yàq nit mën naa wax ngir am li muy but waaye xaalis doo nga tax xam nga damaa mas a ànd ak xalifa loo sama boo demee sax mi ngi may déglu waaw ca Louga hmm. ñu dem ca kokki fekke fa góor gu ñuy wax Amadou Mat Saxir Lo ndeysaan yàlla yàlla waaw mas ko gis ay toog nañ nii ci néegam néegu ñu xam ba gis nga ko baax waaye dem naa ba toog nii feronkulaay yow kay li ma la tax a baax na ma xam naa sa benn baay bu daan nekk fii ci saxaar gi Louga Linguère ga boobu. waaw kooku daan def baana baana. waaw Louga Linguère waaw sama rakku papa la woon jamono yooyu Sénégal neex na dégg naa saxaar gi ay soow wiir wiir yi soow yooyu nga xam ne dañ ko daan jëlee Linguère sama ñoom yaay dañ daan ñëw ay sër waaw boo ne léeg-léeg ñu ne dañuy dem gaar ba jaayi très bien ak saxaar gi ñëw na très bien saxaar gi ñëw na waaw absolument waaw léegi nag mu bind ñaari baat ci suuf góor gi mu mhm. bind am am daat ne léegi benn am am bi da ko bind ayin nag mhm. daan ne daan daane def lañ ci ay tomb ñu def ci ay tomb muy xam-xam. am am. xam bi mu ko dëgëralee rek muy xam-xam. waaw mu ne nag léegi boo amee xam-xam rek da nga am am am. Mm-hmm. waaye waaye nag bu am am bi jiitu de. dëgg la. keroog lii la lii la ñu bindal ci kaw suuf. bu jiitoo boo góorgóorlu. waaw dox sa diggante. voilà maanaam boo bindee xam-xam. boo dindee point yi ci ayin mu daal nekk am am am am waaye bu xam-xam bi jiitoo am am dana ñëw dëgg la keroog lii la góor gi wax góor ma wax na wax na donc loolu te moom koo xam ne alxuraan ko ko ñor dëgg la waxoon na ci jamonoom ne ma mënoon a fay nit ñi ba dëpp dinañ fay dafa koy def léegi nag yooyu kooku osas daaray kokki waaw waaw moom ñu ko noonu waaw turandoom nag moom moo ko fa yónni woon dëgg ko sampal daara foofu Cheikh Ahmad Kabir waaw Ahmad Kabir Mbaye mm-hmm. moom nga xam ne ay génération Serigne Touba yooyu ñooñu lañ la ñu tegoon seen tànk yore woon ko. yéen waa Louga am ngeen i ah? ay ñun dëkku diina lañ yore di. waaw ah, dëgg amul benn dëkk boo xam ne bi la fa ne ka fa ne. Hmm. ban koy tudd tey jaarul Louga. mbaa mu am fa histoire mbaa mu am fa kër. man kay xulóowu ma xeexu ma dama ne rek ay am ngeen dara am ngeen dara ah am nga naan ay kan kër kan kër sëñ Fallou néwu fa ah waaw waaw kër sëñ Baara néwu daa bari kër am na fu ne am na am na feneen dafa na feneen kër kër gu histoire laa lay wax waxuma kër goo xam ne da ngaa dem ah, rek ci année 2000 samp ko de gan këram a histoire wut kër soxna as si Malick kër sa maam Saxeen Mbacké mbay mbay mi nga wax ne Ahmadul Kabir Mbay wallaay wallaay kooku kooku kenn Seydi Hadji Malick ci boppam wallaay dafaa def dafaa toog am fa njaboot la sëriñ Touba am fa njaboot dëgg la moo tax sëñ Fallou këram kër sëñ Fallou ko man ba may gone ba léegi fa ko fekk de man damaa judd dégg ñaan kër sëñ Fallou ca Louga kon xam nga ne Louga alxuraan it te dëkk la boo xam ne bi kenn mosu faa jaamu xërëm mm-hmm. suufa si Louga moom mm-hmm. doone kenn samp na fay xërëm amul amul ah, sam amul histoire génnewu ko fenn fenn yéen yéen dégg naa amu leen woon ci buur yeeg yooyu

mbayit amoon fa doole loolu am na sol ñu dugal ko ci mbay xam nga xam nga traite yi am ci jamono yi nga xam ne mbay booba mi ngi taw taw bu baree bari mm. euh, jamono yooyu suuf soosu dafa bari woon foo xam ne fii li ñuy wax jur gi. Mhm. maanaam am na sax quartier bu tudd Marbat. Marbat xam nga alma. waaw dégg naa baatu Marbat. waaw fu loolu lu tekki. waaw arab la yow. waaw almurabitu loolu lañ ci jublu. waaw mara rabata fu ne ba may karaté. Mhm. ba ma ñëwee Louga foofu laa dem. quartier boobu nag quartier daan dafa yeew ak jur. ndeysaan ay doxandéem di fa ñëw ñoom ñu ñu yàgg lañ ci Louga mhm. fa lañ bokk alors loolu moo am jaareem moo am saalum Sénégal kon moo ami bagage waaw Sénégal réew mi moo yor voilà réew mi moo yor loo xam ne mën nañ ko dundal mhm. mais nag loolu pour ñu dundal ko il faut mu lu jafe la nag. waaye lu mën a nekkaat la. lu am solo nga wax te ñu ubbee ko olofay wax ne ku wat jubbu wi ñu la xamee woon ku la gis fakk la. Mhm. ñun dafa am nuñ ñu xamee woon. Mhm. loo xam ne boo demoon tey Inde ñoom liñ leen xamee woon dañ koo téye wut luñ ca dolli. Mhm. boo demee Siin liñ leen xamee woon dañ koo téye wut luñ ca dolli. ak réew yi nga xam ne ñoom xam nañ lan mooy seen bopp. ak noo koy xàmmee. ñun nag malheureusement lu bari ci liñ amoon boo taalee théâtre bi di seetaan bu buñ lay woon ko jógee ca kaw ga message bi muy joxe say doom dañuy reetaan xeebub kaw kaw bu ñuy wane ab baykat dootoo ñee ab baykat dootoo bëgg a bàyyi nga xam ne li ñu dal ñun ci suñuy acte bopp ñoo ko teg suñu bopp ci suñ façon doxalin. loolu nag jurul jàmm. waaw xam nga mas naa ko wax ci série yi di am ci télé. yooyu yaa ma gën a miin yooyu waaw waaw série nangam. série waaw série nangam waaw. gis nga ñiy def série yooyu. Hmm. man bu fekkonte ne li ñu tuddee critique de l'art. maanaam critiquer hmm. affaire bi. Hmm. pourquoi toujours bu ñu koy def ci lu luxe rek lañ koy defee. fa rafet ay hôtel ah. ñoom ñoom dañ ci indi tontu léeg-léeg bëgg a wan comme dañuy jaay image Sénégal itam dañuy wane la rafet la a ñu li a tudde lu ñaaw suñ biir yuur yi waaw ñaawut ñaawul voilà très bien <laughs> man man tey je préfère ñu wane genn góor gu am juróom-ñaar fukki at nekk ci tool bu naat di déqi dëgg la di déqi gerte gu te li ngay wax nii waaw boo ko foto woon wala nga filme ko dem ba Europe woon ko ab tubaab daraat la image bi rafet na ah, maanaam image bi da koy marqué moo tax rafet rafet moom waaw rafet rek waaw parce que dafay wane dafay nature bi waaw wane tabia bi maanaam wane garab yi wane picc yi di naaw xam mhm. nga wane wane wane sayaan yi Mm-hmm. fekk mu taw ba pare génn góor di déqi gerteem nga filmer ko bet ci film bi benn xale bu jigéen ñëw sol lu ñëw di wax ak moom ci biir tool bi man loolu defe naa eh, moo gën xale ba indi ndékki wala añ ca garab ga waaw ba lépp ne ko bàyyi diw waaw mu wuyu mu ne ko ndékki laa ngi ca ron kàdd ga <laughs> waaw ba léegi nag mu ñëw nga gis léegi dox gi muy dox yore gopp bi di ñëw théâtre bi di continuer noonu man pour man moo gën a rafet foofu di wane ay huit huit non pas ay huit daan kay sangu piscine kottante. waaw waaw waaw yooyu mooy daal loolu nekkul ne suñu aada woon ak suñu cosaan. Mm-hmm. mais piscine yi ñuy wane ki sol fii nangam loolu c'est pour occidentaliser nos réalités. Mm-hmm. te loolu warut a a mën a demee noonu. Mm-hmm. mais dañoo gëmul suñu bopp comme li nga wax léegi. suñ ko gëmul duñ fi nekk sax naan non dañoo bëggee jaay li am na ay intellectuels yu fi nekk ay historiens yu fi nekk ñu xam démb nekk ci idée ay universitaires. am ñoo xam ne ñu ngi seen di dëkk. nekk fa ñu mënoon dem interroger leen pour ñu mën a wax lu mel mhm. noonu mais malheureusement mhm. ñun dañuy def symbiose boo xam ne bii dara boo seetloo dëgg la lu am solo la jërëjëf sëñ Maodo ba jaajëfal ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci commentaire yëpp euh, ma jigéen Guèye nee na ma dangay ngay tardel débat bi ndax Louga ak Sénégal Louga ak Louga ak Jurbel yëpp Sénégal rek la. xam nga ne kooku li mu wax dëgg la. ah déet waaw Louga mooy Louga mooy Sénégal Louga mooy Jurbel Jurbel mooy Louga. waaw parce que ñi nit ñëpp xam nañ li nga wax moom. non non mais amoon ay kal. mais dëgg la amoon ay tooñante amoon façon yooyu. itam ci façon yooyu réew mi la bokk ah. mais lu am wax itam am na solo ah. trop parce que itam bu ku ne xëcc jëmee sa parce que da ngay remaniement am. président formé gouvernement waa Bambey génn ñun amuñu ministre waa Matam ne ñun amuñu ministre te ministre bi du ministre bu Bambey mais ministre Sénégal la. mais wax naa ko si ba merci Mbacke démb rek bi ñu fi waxee ne euh, euh, candidat bu Macky Sall Amadou Sall euh, Amadou Ba candidat benn mën leen c'est le premier ministre du Sénégal d' parce que loolu moo gën a yaatu. Hmm. mais buñ ko fab rek daat koy singulariser. waaye nag en même temps itam nekk candidat wu Macky Sall it. maintenant c' est normal. Ah, waaw kay d' accord nangu lor ko rek. waaw hmm. yaatu. ci comme li ñuy waxtaan. ni hmm. ci ci Maodo bi bu ñu bu ñu bu ñu singulariser nit ñi. Mhm. maanaam Sénégal day benn bopp. dëgg la dañuy faral rek kenn mënu koo xar ñaar. am na ay réalités yu am Casamance. Mhm. boo xamee histoire Casamance. bu mhm. baax a baax. xam les trois baies Bissau ah ak euh, euh, nu ñu koy waxee. Bignona Bignona. Hmm? ak tamit euh, fàttali naa benn. yeneen ak Banjul ak Banjul waaw. yooyu seen histoire boo ko xamee ak li indi Gambie ci biir Sénégal. Hmm. ak anglais yi ban fa duggee da ngay xam ne hmm. réew mi benn bopp la. mais il faut loolu bis ñëw nga waxtaanal. absolument parce que man xaw ma li ngay wax nii. ah kay danaa ci mas a ñëw waaw te yooyu ñàkk koo xam it wóorut non non parce que xam nga <laughs> portugais yi jaar nañ Casamance gaa mhm. mais en réalité Casamance ci biir Sénégal la bokk mhm. boo xoolee ba xool ba xool parce que bu fekkee traité rek la ñuy wax tubaab bi traité na ak buur ba Jolof <laughs> traité na ak keneen mhm. mais teewul Sénégal di Sénégal kon Casamance dafa nekk une partie intégrant ci pays bi Guinée googu nga tudd moom la ñu fubalal tey waaw Guinée Conakry moom beneen affaire la xam nga Guinée bu duggoon ci taarixu Guinée eh, Guinée a fa nekkoon coloniser leen woon lu jiitu Sékou Touré di ñëw président Sékou bi mu ñëwee loolu sax déjà moo indi derby di entre le Sénégal mm. et la Mauritanie parce que histoire bi gën a récente entre Senghor et Sékou Touré mm. dañ nekkoon ay rivalité mm. parce que Sékou li mu bëggoon ak fi Senghor tegoon tànkam bokkuñu moo tax Senghor était un peu beaucoup plus proche de la France mm-hmm. que Sékou bien que France moo leen colonisé woon mm-hmm. moo tax en 58 ou ba fa général de demee immédiatement ñoom dañ ne dañuy jël seen indépendance. Mhm. après la ñëw Dakar nag affaire yi mhm. dem Senghor ak Mamadou Dia fekku leen fi mais loolu beneen histoire la. dëgg la mais gis nga réew. réew ci boppam. Hmm, euh, bala koo jël sax da ko war a xam. Mhm. waaw réew mi kon kon ñiy laaj réew mi war nañoo xam réew mi war nañoo xam dëgg dëgg dëgg dëgg lan mooy réew mi am na ñu bari nag Maodo yaakaar naa xamuñu réew mi kilifa wala yu noonu waaye bu waxee wala mu def nga xam ne kii xamul Sénégal kilifa la ca lam nekk ci ak étape bam nekk waaye boo ko laajoon dara ci réew mi xamu ko boo ko waxoon tey ji ne ko yang yang premier résultat yi premier réalité yi fa nekk xamu ci biir yëngal waaw te c'est nit ki war a xam réew mi. gis nga li ñuy tuddee bassin de rétention yi fi Ablaye Wade andi woon. Mhm. nga xam ne dañ koo dénkoon euh, maître El Hadj Diouf. Mhm. maanaam ndox yeeg ah, moom la yoroon ministère boobu. waaw ministère mooy poto poto yeeg taataay waaw waaw waaw yooyu. mais attention ministère bu solo la. dëgg la kay mais yang yang lañ ko njëkk a defee en 1933. gis nga te am na koo xam ne ki tey boo ko waxoon ne ko bassin de rétention day defe ne ci Ablaye Wade la tàmbale mhm. moo tax Ablaye Wade il est très intelligent parfois mhm. day wax dara fekk xam cosaan la mhm. mais loolu mi ngi déparé Jolof ci yang-yang en lan moo tax nit ñi parfois comme léegi di xëccoo loo xam ne tey boo leen ca laajee duñ ca xam dara am na conseiller boo xam ne bi tey da koy jël def ko conseil technique mais conseil technique mooy lan

bii ne ko rajax waaw xanaa léeg-léeg ma coppati Louga tong ci bii waaw waaw doone ko rajax waaw waaw Louga moom mën na ko ci bañ a tudd waaye xam naa ni waa Louga moom xam naa waa Louga moom kii nga leen <laughs> falaa dëkk rek samay maam a moo fa euh, Maodo tegal foofu sa baaraam te wax ma lu Sud Quotidien waaw Sud Quotidien tey dafa ñëw rek ci maanaam li nga xam ne dafa nekk ay atteinte au droit de yi nga xamee ne dañu wax ne loolu mën na indi crise préélectorale hmm. maanaam Sénégal Sud Quotidien dafa dikkaat ci jàpp ne nit ñi dañ leen tënk ci seen wàllu liberté ak yu demee noonu hmm. le cas Sénégal fi ñu toll nii dafa nekk en question parce que Sénégal ci boppam ñu baree bari dañ koy dingat ci loolu emprisonnement bi et loolu ci la ñëw parce que Human Rights Watch. dafa nekk benn hmm. mbootaay goo xam ne gii. dañuy yëngu ci wàllu euh, ak. Human Rights Watch waaw noonu lañu ko tuddee c'est en hmm. anglais. benn ONC la waaw dañu accablé le Sénégal. ci benn rapport boo xam ne bi hmm. ñu ko defoon en maanaam daaw rapport boobu nag. dañ ci ñëwaatoon di ci waxtaan moo tax Aïssata Tall Sall mi ñu dénk wàllu fànn boobule euh, am ay kàddu yoo xam ne sax wax na ko nee na pour le Sénégal moom le droit humain dafa droit humain pardon mhm. dafa nekk dafa ko les droits humains sax la wax moom constituer une option mhm. irréversible maanaam dafa nekk loo xam li Sénégal nekk na fi hmm. option boo xam ne bi kenn mënu koo dindi hmm. moom loolu la wax ci après d'après moom ni mu gisee ministre bi hmm. mais de toutes les façons am na organisme yoo xam ne a xat daal euh, njaw desandi naw xam bin daal euh, benn bilan boo xam ne bii ci biir Sénégal ba tey maa ngi sur quotidien dama koy développé dafa nekk euh, waaw loolu loolu la def en premier muy sur quotidien fi mu toll nii ban commentaire nga ci def commentaire bi ma ci def mooy euh, xam nga àq doomu aadama ak yoon. Hmm. Euh, wax dëgg yàlla mënoo ne à 100 pour cent Sénégal amuñu ko. Hmm. loolu moom loolu yu fi def la. 100 pour cent waaw liberté d'expression tamit mu ndax daal mm, am na fi tamit. Hmm. waaye xëy na nam war a amee. moom moo xaw a des. waaye nag liberté d'expression ak xaabaabal nag bokkul. dëgg la xaabaabal mooy wax lu ñu la wax loowul. wala nga wax boo wax loo xam ne waxuwul. ndax nit mbakke tànk mi nga wax loo xam ne bu ñu ko waxee ko wax. liberté d'expression waru koo may loolu. déedéet. loo am am liberté d'expression waroo wax Mbàkke la loo xam ne lii man su ma ko waxoon sa wayjur wu góor mu metti ko. Mm. xanaa Mbàkke mu amul wayjur wu góor. Ah, xanaa Mbàkke mu amul ndey eh, ndey ju ko jur. ah, ah kay mm. léegi nag moo tax liberté d'expression c'est-à-dire que parler de des actualités. comme nii commenté ko. mais moment yi ñu dund ci ginnaaw bari na ñoo xamante ne ñu baree bari am nañ ci ay jafe-jafe ak ay wax léeg ñu tuddee loolu kon ñàkk liberté d'expression est-ce que ñu bind li sukkandiku wuñ ci loolu. waaw mais justement moo tax ma la ça dépend ci conception bi nga ci am. bu hmm. fekkente ne ki wax. bu toogee ba guddi dana xam ne li waru ko woon a wax kon loolu dootul liberté d'expression mais bu fekkee li muy wax fekk am nga libre nga yow am nga liberté hmm. nga xam ne président Macky Sall posé na soit nga ne lii dafa négatif waaye lii dafa positif bu ñu defoon lii nangam mais loolu amul problème. Mhm. mais bu fekkee da dugg ci vie privée nit. waaw loolu moom baaxul. waaye mais genre yi demee noonu nag kenn xamul lu muy firi. noonu léegi nga xam ne ku ar ku d'accord nit dootu leen xoolatee argument. Ah. waaye léeg-léeg dem ci passé am jéem a ah. euh, di wax loo xamante ne yow am na bu la dalut ku ko def ci yooyu amul sens. absolument mhm. xoolal kii wax ba mu naafeq la ci wax ci waxee. waaw ñun dañ koy wax ne léegi facilement mu euh, oyof suñu. la am te baat bu garaaw la kenn du ko wax doomu aadama. Mm-hmm. ma ne Mbàkke si la di commenté a yëpp. waaw Mbàkke si la mm-hmm. ko wax mm-hmm. ne <laughs> diw naafeq la te naafeq moom li ñuy maccaate teg ca loolu baaxul te naafeq rek d'abord naafeq rek dafa araam waaw jëmmi naa féq ci boppam hmm. mooy lu araam luy dox hmm. loo xam ne nit ki ci boppam xaraam mutlaxan hmm. araam na dëgg la wa nga ne nit ki moom la xam nga loolu te yow nag xamoo ki nga doon moo tax yonent bi ci wàllu takfir ma ma du naat foofu waaw takfir boo ko defee nit yonent bi nee na dugg nga ci dugg nga ci mpax soit yow yéefar nga wala moom muy yéefar eh, eh, loolu am na solo mais loolu dama ko cee dama ko cee dugal rek effectivement naa fekk gi démb jotoon nañoo tudd ay candidat ah. jotoon nañoo waxtaan tuuti ci eh, politique bi ak fi mu toll ñu ngi jëm balay booba damay jëllu si waat ci wàllu élection yi techniquement mm. parce que bu ñu waxee lu man ñaar fukki candidat war a dem ci ay élection mm. Maodo ci wàllu organiser loolu ci élection est-ce que jàpp nga ne dana yomb man nag jàpp ma ne fukki wa day am ñoo xam dañuy bàyyi wala dañuy fekk ñenn waaw maanaam dana am ñu booloo ji wala ñu rocceeku wala ñu am mm. dem def ab lim ji diw wala am koo xam ne jékki-jékki daal ne boo man retiré naa sama candidature man naa waaw waaw lu lu mën a nekk la daal laa bëgg a wax. Mhm, mhm. bu keroogee mais vingt vingt vingt vingt vingt bulletins de vote mën naa mën naa gaaw mën naa bañ a gaaw. ça mhm. dépend ci organisation bi rek. ah organisation bi ci naka. loo xam nga. parce ki dugg vingt jël war a jël vingt kayit. waaw war a def nangam mais loolu rek la woon nañ ko dañ wax ne lu mu gàtt gàtt jëlal lu mat cinq rek. cinq waaw xanaa ñu indiwaat xam nga boo jëlee ci commencement bi coppati ci digg bi coppati waat fee coppati fee ba mat cinq wala six ki nga soxlawul doo ko jël te pourtant loolu. boo ko def ñoom seenub jàll du ba tey loolu rek la woon nañ problème boobu su fekkee dañoo nekk dix candidats par exemple dix candidats ma dugg rek rocci benn hmm. demaat ba ci digg bi ma rocci benn demaat ba ci xaw extrémité bi ma rocciwaat benn rocci fee benn hmm. juróom yooyu ma lem ko te man donc maa nekk maa wane gannaaw di rocci waaw mën nañoo bañ bañ a xam ñi ma jël hmm. te damaa wane gannaaw te bu ma demee ca mbañ nga ci wateel te laa te hmm. kenn ki gën xamul kan la dëgg la donc loolu mën nañ koo régler léegi nag organisation matérielle bi moom moo war a nekk li gën a primordial parce que élection dëgg dëgg dëgg ñaar fexe ba li ñu voté ci kees gi ñu yulliwaat ko maanaam mm. les réalités des urnes ñu fexe ba génnewaat ko. Mm-hmm. loolu moo gën a ëpp solo. dëgg la ba xam nga ban moo ci tegu. Mm. dem voté ji. Mm-hmm. parce que voté ji du force mais nga dem voté ji. waaw mais am ba pare bañ mm-hmm. loolu moom daanaka déli la. complice la sax ci liy xew lu xewati rek am nga ci wàll. kenn te dem toog déet déet bu loo nga de. da naan bu ñuy wax da war a noppi. ñooñu ñooy wax. ah fi mu ne ñi fi ne ñi dul watee ñoo ëpp coow. waaw non dañoo maa gis ñu wax ba xaabaabal te amuñu kaa dante waaw loolu lu ko fi jar. waaw wax ba ñu lay korose te yow sosoo mosoo wate. waaw yow réew mi li koy doxal bokkoo ci. Hmm. bu ñuy tànn président doo voté ji. ba noppi nag téye saw carte ne man du ma ji ba noppi ku wax nga wax. Hmm. yow bu ñuy wax da war a noppi. léegi bureau de vote yi bu fa candidat bu ne amee représentant vingt dana fa nekk. ak fay nekkal sénat bi ak kii nekkaat nangam ak kii nekkaat nangam mën na nekk bu dee yi nañ nañ nañ

bay boo nga ñeme ko. léegi journaliste yi aussi candidat bu ne war nañoo am maanaam organe de presse yi candidat bu ne ñu yebal benn. Ah reporter bu ànd ak moom non loolu moom ma ngi dépendre ci taskatu xabaar yi ak maison yi de la presse yi ni ñu koy doxalee comme Sud FM wala beneen kër. wala dana compliqué aussi. non c' pas compliqué avec les moyens de technologie téléphone et tout c' très simple man par exemple bu ñu doon wootee Matam tey nii. ñëpp ñoo war a yem àq ak yelleef ñu xam nga vingt candidats hmm. benn maison kër gu ne mën nga am mën nga am ñaar fukki taskatu xabaar xamaa yu fa nekk non pas yu fa nekk mais ay reporters yu ànd ak ñoom waaw loolu laa la wax mën naa nekk waaw mais par exemple vingt vingt léegi par exemple bu Sud FM joxee kenn mu topp benn candidat hmm. RTS joxe kenn mu jox benn candidat presse écrite joxe kenn mu topp benn candidat loolu hmm. dana mat loolu loolu du loolu am na solo euh, léegi nag candidat yi nekkoon ci diggante bi lañ doon wax ma jël ci peut-être kenn wala ñaar euh, nga nga jàngatal ñu ko. Mm-hmm. tey bu ma jëloon ku mel ne Boubacar Camara. Mm-hmm. Euh, defe naa élection yee jàlloon 2019 moo nekkoon directeur campagne Ousmane Sonko. Mm-hmm. tey candidat la keroog ca parrainage yi moo njëkk a génn noo jàngatee eh, ñooñu wala nga boole woon ko tey moo ku mel ne Déthié Fall ak Cheikh Tidiane Dièye moo kii Habib ak Cheikh Tidiane Dièye parce que ñoom ñëpp dafa mel na ñoo bokkoon genn a ndax li ngay njort ni ne candidat bi mën naa bàyyi wala bi mën naa bàyyi jàppoon ne ñoom ñooñu mën nañoo boole ji doon ok mooy politique moom nee naa la démb fii bu kenn wax ne lii mënta nekk ci politique mm. lu ne mën naa mm. dem ba bokk genn kàddu mën nañoo dem ba kenn roccee ko mën nañoo dem ba jiital kenn mm. mën nañoo demit ci d'une façon dispersée kenn ku nekk wuti bu nee ba fekkee yàlla dogal na deuxième tour am kenn ku nekk jàppale sa morom mais bu dee cas Boubacar Camara il faut ñu comprendre que ni Boubacar Camara ñu baree baree dañoo jàpp ne dafa bees ci politique wala yu demee noonu mais déedéet. beesu ci déedéet. parce que xam nga nit da xool jaar jaaram. Mm-hmm. doog a xool li tax mu ñemee def li muy def. Mm-hmm. xam nga lu mu toll ne douane. Mm. ci am réew. Mm. nga nekk directeur général pendant des années. Mm. am nga xam-xam. xam nga nit ñi xam nga ruq-ruqaan yi xam nga lan mooy fikra Sénégal yi la psychologie des sénégalais. jàng nga ko parce que douane. loolu dafa bokk ci seen ay mbir. alors mu jiite ko ay at yu baree baree bari nekk fonctionnaire bu mag ba noppi tam yàgg liggéey. ba noppi tam bokk ci réew mi ba noppi xam nit ñi am ay relation mm-hmm. dem ba mu yàgg mu natt boppam. Mm-hmm. xam ne léegi gis na ay réalité yuy dox ci réew mi mu ne man lii naa ci sóobu. avant mu koy def waajal na boppam du ab dof. Mhm. maanaam du dof si si façon de dire eh, que lim def lim def xam na ko. Mhm. alors muy muy muy Boubacar Camara. te beneen bi ci tegu tamit mooy dafa nekk nit koo xam ne kii nitu nitu défi la. Mhm. dama koy faral di wax ci moom. te tamit nit ku am fit la. tey tamit Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dafa doon wax naan nga xeex ak nit mu gañe la. nee na dafay wane sa njàmbaar. Mhm. ndax day waaw ndax nee bi taxaw jotee def nga li nga mën. Mhm. loolu kon loolu ba bay boo ñu bàyyi leen xel. Mhm. te nag bu kenn wax ne amuñu aw nit. ndax la leen may parrainage. ak leneen liy ñëw ak la ñuy def ca suuf te yëguñu ko te politique dafa bari ay surprise. kooku moom xam na politique. intellectuel la bon je veux dire boroom xam-xam la. jàng na te mën naa yor réew mi. waaw tey ji tey bu par exemple bu ne woon tey Boubacar Camara moo nekk président de la République du mm. Sénégal mm. kenn du weddi na mënu koo yor d'accord léegi nag doxalin wa moom moo na mu koy nag benn affaire la mm-hmm. mais moom li nit di mën a am ba mën a nekk président Macky Sénégal mm. mais naturellement Boubacar Camara mën naa nekk président du Sénégal ok xam nga dafa am ñoo xam boo leen tuddee maanaam ci xam-xam jàpp nga ne mën na ko absolument euh, ci euh, ci ak mën a euh, doxal jàpp nga ne expérience am tam wane na ne mën na ko ndax fi mu jaar mm-hmm. ku fa jaar dëgg dëgg mm-hmm. te moom yàlla dimbali na ko ci loolu mm. kon mën na jiite réew mi. noo jàngate Déthié Fall. xam nga Déthié Fall moom il a fait le service militaire et tout. xam nga Déthié. nekkoon nekkoon na réew mi dafa mel ni. Ah, dafa ba nekk sax nekk fi député yëpp ah, kay. Mm. Euh, xam na politique xam na réew mi mm, nekk na it koo xam ne kii aussi borom jom la. moom moom ku bari jom la. moom Déthié Fall moom waaw. nit la koo xam ne kii tamit. wax dëgg yàlla li ma xam ci moom de lay wax parce que mm. dama koo xam mu xam ma mm. bu baax mm. ba noppi tamit nit la koo xam ne kii tam ku dëggu la waaw buy def dara day nekk ci dëgg lay nekk te it ku nekk ku neex a waxtaanal la itam moom it sur le plan intellectuel bu ñu ko joxoon réew mi tey mën na koo yor mm-hmm. waaw man ko mën naa yor réew mi at yi may na ko ko kattanam may na ko ko mais pour le moment nii li ko dese rek mooy percé gu mu a per biir percé biir Sénégal a surtout ci yenn gox-goxaan yi nekk ci Sénégal du ma leen tudd. Mhm. ku mel ne ñoom Déthié Fall yu demee noonu seen tur doole jam fa war am des na daal. Hmm. d' kooku ak am na taxawaay parce que itam. non am non si borom taxawaay la. Mhm. non na politique. Hmm. te it am na te c' est un homme social kuy kuy def moom d' accord loolu am na solo ñaar a tudd nga way juróom tudd na ñenn ñi dañuy wax ne nekkoon maanaam du ko bees parce que politique ah, na et wax na ko sax barki démb dégg naa ko mu ne. jigéen jigéen itam nekk nekk président wu Sénégal noo jàngate loolu est-ce que loolu ñor na bu doonu togg. des na. des na waaw togg gi des na mais man yàlla mën na koo may ca kanam nag wërsëg mm. wërsëg wu tax loola mën a am ndax mm. Sénégal la koy soppi ca kanam la nekk nekkagul ci yi fii nii mm. problème régime ak yu demee noonu bërki démb nag dégg naa Anta Babacar mu ne nekkuma candidat Macky Sall nekkuma candidat benn nit bu dul sama candidat bopp loolu nag wax bu am solo la mais est ni mu ko waxee noonu la demee loolu beneen affaire la mais c'est une Euh, waaw parce que wax dëgg yàlla bëgg naa koo jox wàccuwaayam ni ma joxe ñeneen Sam Verdini la waaw miinuma miinuma turam lool parce que ñaar ñeen damay jaawale seen tur Sam ak keneen ka kon de xanaa du neex a jàngat comme tur yi sax jàppaguñu xanaa parce que waxtu wee ñu dab mais daa mën nañ ko jàngat mais après ñëwaat ci wax waaw ñu gëstu ko après bu ñu dellu si waatee ñëw ci moom defe naa Sam Verdini la euh, parce que parce que il faut ñu ñëw ci moom ñëw itam ci candidat wu pire parce que mm, ñoom ñaar pire ak euh, Idriss Seck doy nañ émission ci jàngat leen ñoom ñaar surtout waaw ñoom ñaar ñooñu waaw ñu ne li nekk seen ginnaaw ci wàllu politique bari mm-hmm. te itam bu dee parti pur am na jaar-jaar bu dee Idrissa itam bari jaar-jaar ak lu ñu war a jàngat ci moom au moins ñu xam fa ah, non non bu fekkente ne dañoo jëlal Idrissa Seck rek tey mm. ñu wax ko rek sans prendre parti mm. ci ñiy xëccoo réew mi ku ko ci expérience politique newu ci maa maa la wax li yow tàmbali nga dama ko waxee noonu rek. Hmm. dama non. Rose Rose Rose Wardini la tudd. waaw Rose Wardini waaw Rose Wardini. nekkoon ne. non ma nekkoon waaw. waaw Rose moomu nag xam nga dama leen di jaawale. parce que ak Rose man mi loolu laa yaakaar dama parce que waxtu bi jàpp nañu mais boo déggee ma wax loolu. du lu ma for ci mbedd yi. Ah. Mm-hmm. loolu ñi may déglu waxuma ne nii la mel wala nee la mel. mais demal expérience politique ci vingt candidats yi nga xamee ne ñoom ñooy xëccoo réew mi ku ko ci ëppale vécu politique bu Idrissa sekk nekku ci. danañ ci ñëw. waaw beral ko waxtaanu boppam. fàttali la li itam ne la alxames ak jàmm mooy màggalu poroxaan. waaw eh, loolu itam waxtaan la wow danañ ci ñëw. waaw jomb ci alxames waaye nit ñaa ngi koy waajal. jërëjëf Maodo. jërëjëf. waaw bul dama laa wax jëf rek mais mi sama jeexagul. yow da ngaa mën a tooñ. ma wax la léeg ko laa di wax. lu mu wax on est en direct <laughs> xanaa nam nga ko de. waaw trop. <laughs> sama waa ji dañoo ko dégg. jërëjëf jërëjëf sa jàmbur jërëjëf euh, Ndoye Cheikh Omar euh, ñooy suñu mm. caméraman yi buñ noppee ñu jëlaat waxtaan wi euh, toggaat ko defaraat ko tàbbatal leen ko ci biir scène bi ñoo ngi leen di jaajëfal baax jëfal itam suñu mbokki internet yi nga xam ne ñoo ñuy topp di commentaire ak a aimé biñ tàmbalee ba léegi ngeen tàmbalee ànd ak ñun yéen a ñuy dooleel ndax ku toogoon di waxta kenn dégluwu la ku la fekk danaan day waxtu li ma Maodo di jiiñ koñ kookaa ko def dëgg-dëgg muy ak ndof waaye wax di aku nit nit ñi di la déglu kooku nag yaa ngi wax aku nit te nañ ne yéen ñuy déglu yéen a jariñu Alioune Badara Socé jërëjëf mbokk yi ba suba jàmm incha allah. yàlla may nu jàmm ju dund bu mat sëpp may nu ndox bu mat sëpp may nu teraanga bu mat sëpp yaakaar ju mat sëpp may gu mat sëpp may nu gu mat sëpp may dund gu mat sëpp may